nga xam ne tey jii kuréel 1 national bu Hizbut ñooy amal njàng mi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor yi donc mbokk yi ñuy door dab ñu fàttaliwaat leen ñu ngi en direct fii ci Touba ci résidence Khadim Rasoul ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal euh, muy bis bu korité tey ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi nag ñu nekk ci wàccaayu séntu weer wi incha allah daañu ko retransmettre en direct incha allah fii ci uh, Touba Mbacké ànd kook waa daayira mu xaddamatul xidma bi nga xam ne ñoo yor uh, jumaa Touba ji waaye it uh, incha allah su weer wi feeñee wala bu feeñu nit incha allah daañu amal ay boroomi xam-xam yoo xam ne daañu leen dalal fii ci plateau bi ñu indi ay leeral yu am solo waxtaan woo xam ne dafay jëm ci weeru yi nga xam ne moom mooy ni ñu koy waxee rek weeru olof yi nga xam ne fukki weer ak ñaari lépp indi ci leeral ni ñu war a séentoo weer kan moo ko war a gis ba mu war a wér euh, jullit yi ñu war a ñu war a mën a nangu euh, xibaar yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci ki nga xam ne moom moo gis weer yi loolu yëpp incha allah daañu fi dalal borom mi xam-xam ñu fas yéene ci waxtaan waaye bu weer feeñee bu ñu demee ci bisub julli gi bu ñu xëyee daañu wéyal plateau en direct bi ci mboolem julli yi nga xam ne day am ci bërëb yu wuutee ci réew mi moo xam fii ci Touba en direct lay doon ca Daarul Minan en direct lay doon nga xam ne noonu la xalif bi di génnee ba ni muy ñëwee fii ci grande waaye it euh, lépp loo xam ne ci julli gi lay doon incha allah daañu ko retransmettre en direct waxtaan yi muy sermon xalif bi ni ko di baaxoo di defee waaye it julli yi nga xam ne day amee ca Daarul Muxti incha allah daañu ko wane incha allah lépp en duplex lay doon julli yi nga xam ne aussi day am ci fi nga xam ne moom moo di ca Masalikul Jinaan incha allah daañu ko dugal ci euh, duplex bi julli yi nga xam ne day am ca bitim réew ci yeneen réew moo xam France Italie Euh, ak yeneen i réew yi nga xam ne ci diaspora bi rek euh, d'une manière générale euh, fépp foo xamante ni ñu ngi fay amal julli korite gi incha allah daañu fexe jël signal boobu dugal ko ngir mbokki taalibe ñu xam ne. Euh, yaatal la ci moom moo am solo ci li nga xam ne moom la def tey loolu moom mooy suñu objectif moo fépp foo xam ne ay julit ñu ngi fa fépp foo xam ne ay taalibey murit ñu ngi fa di dundal li nga xam ne moo di bisub koor gi incha allah daañu ko ànd ak ñoom waaye noonu la lañ ko fas yéenee fii ci plateau bi spécial xam ne daañu ko fi amal ci ngoon gi muy spécial euh, balonte yàq leeral li nga xam ne moom moo di liggéey bi ñu doon amal fii ci Touba ci résidence Khadim Rasoul ci ay plateau yu am solo dalal fii euh, moo xam techniciens yi moo xam kilifa yi nga xam ne ñoo yoroon ni ñu doon dundalee koor gi fii ci euh, Touba ak journalistes yi lépp ñu dund ak euh, ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan ñu gën a xam ni nga xam ne noonu lañ doon dundee weeri koor gi fii ci euh, Touba Mbacké waaye it incha allah kon si daañu amal plateau bu spécial ànd koog Serigne Gana Messere Makhtar fii lay doon en direct ci mboolem chaîne de télévision yi nga xam ne moom ngeen ñuy seetaan